waxtaan wi ni mu tëddoo di yëkkati nuyoo yi gën a sell ak nuyoo yi gën a tedd ci turu son excellence monsieur le président de la république Macky di ko jox di ko teg ci loxo Serigne Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké di ko ñaan mu jot ñu ko Serigne Cheikh Mountakha jataay bi yàgg na naam waaye yàggaay bi yëpp euh, li ko waral mooy solo bis bi waaye li ko waral mooy yitte ak yére di jëm ci màggal bi ndax ku ne xam na cosaanu màggal fàttali nañ ko te duñ noppi di ko fàttali waaye ku ne xam na tamit solo bi mu am ci yoonu murit am ko ci lislaam am ko ci mbooleem ku nekk senegal xam naa ci fii sa euh, déggoon naa Serigne Saliou tamit daan ko nett bi ci màggal euh, ak li indi baat bi ndaxte mat yi taalibe yi fonkoon nañ màggal fonk goo xamante ni léeg-léeg daan nañu am benn gàtt tabaski jot ñu tëbal ko bàyyi ba màggal di jot ñu door ko lewatal euh, am yeneen mag yi taalibe yoo xam ni bu mag bi sëriñ bi wootee dinañ ko ci sant suñu borom te ku ne xam na tamit ni xisa di demee na mu ko njëkkee defalal boppam ca njaareem yenn magi taalibe yi di ko tuddee tabaskiwaat euh, Serigne Saliou nekk li nii euh, Serigne Touba ko bañ bidaa bañ bu mu bañ bidaa tax mu woote ni dee leen ko tuddee ak màggat kon euh, solos bis bi ak li tax màggali jug ku ne xam na ko sëriñ bi tamit baaxee woon ni ci leneen muy moom Serigne Saliou ni ñaari murit ñoo gis ki gën a fonk bis bi saa yoo nattee seenu dox ka ko gën a fonk moo jiitu ba tax na ñu ngi ñaan donte yooyu wax yooyu ñu wax jooju mu tàmbal ñu ci barket la ñu dëlale ci ku fonk màggal te suñu bisu tey bii dib tàmbali wane na ko ci yitte ak ci pas-pas waaye tamit ci pasteef ci naka la état bi taxawee ci màggal waaye naka la comité d'organisation bi taxawee ci màggal bu weesoo dimension religieuse bi ma njëkk a wax am na beneen dimension muy dimension économique fàttali nañ ko léegi ci wax euh, muy Serigne Cheikh Bass fàttali ko léegi euh, ay jàngkat ay saytukat ay boroom xam-xam yu bokkul ci yoon wi natt ko leeral ni ñaare xew-xew dajaloo mu mel bi du bis bu ñuy liggéey dañuy wax ni l'économie bi di koom-koom bi du du ñu gis ni day jëm ca kanam waaye màggal xañ na loolu mbóotu bis bi la bu ñu ko nattee dañuy gis ni dafay jëmale kanam économie jox ci indi ay dox ak ay jéego yuñ ciy seetlu yuñ jul seetlu ci yeneen bis yuñ ko mën a méngaleel wala yu mel ni moom donte sax méngale ko moom day daanaka euh, nekk lu mënta ne waaw ba tax na Euh, li ñu jotoon ci ndigal ñu sotti ko wala jottale ko service état bi yépp ma leen di sant di leen gërëm ci seen taxawaay ci turu son excellence monsieur le président la république Macky Sall gis nañ ni am nañ ci taxawaay bu mat sëkk am nañ ci engagement bu mat sëkk te loolu lañ doon xaar ci ñoom te fileeg ñuy jëm ci bis bi tamit loolu la ñuy xaar ci ñoom liñ fi posé ci problème wax ko fi ci ay euh, tawat bu ñu ko mënee tuddee noonu li ñuy xaar ci service état bi yépp mooy fi lekk ñuy yegg ci bisu màggal bi li ci des ci saafara ñu def ko ci euh, gis naa ma koy félicité bu baax gouverneur Ndiarène mu indi ci benn euh, jumtukaay bu bees maanaam di nattukaay ci lépp lu service état bi wax ak comité d'organisation bi fan lañ ci toll ci réalisation gis naa benn tableau bu mu def bu am solo bu xarañ buy wane ni li ñuy tàmbali ci liggéey bi jëloon ko ci ay engagement boo ko xaymaa tey ñu ngi ci 77 virgule 95 pour cent de taux de réalisation loolu nag euh, mooy liggéey liggéey da ngay xool fi nga tàmbalee ak fa nga jëm nattit fa nga yem ak li dox sa diggante nga yegg nga xool nan ngay gën a labbalee ngir mu gën a gaaw gën a baax kon ñu ko si félicité bu baax ndax bépp liggéey boo gis liy njeexital bi mooy mu am résultat liggéey bu fekkente ni bëri na coow wala am na ay werante te bu ñu seetee ci njëlbeen bu ñu xoolee ci njëlbeen bi ba ca mujj bi amul dara lu ci juddu ci njariñ kooku liggéey boobu day mat a xoolaat xoolaat taxawaay yi xoolaat seetluwaat tamit naka lañuy ñuy kon bu fekkente ni jël nga initiative boobu nga dugal ko ci ni ñuy toppee muy suivi bi ni ñuy toppee li ñu war a doxal jëmale ji ci màggal gi maa ngi la si félicité bu baax di la si encouragé di la wax ni liggéey moom lenn rek mooy solo si mooy na am résultat mais liggéey bu amul résultat daanaka perte temps la or dans l' administration loolu moom la son excellence monsieur le président de la République Macky Sall waxoon ni ñu ginnaaw juróom fukki at wala juróom benn fukki at ginnaaw bi Sénégal indépendante léegi même administration bi évalué waat ko nattaat ko xoolaat ni muy dafa baax ndax dafa mës a doon administration de commandement léegi dafa war a doon euh, administration euh, maanaam tourner un peu plus ci yenn considération d'ordre privé yi gestion axée sur les résultats et puis di xool objectif yi naka lañ koy réaliser di ko natt comme ni privé bi di doxee donte bokkuñu li leen tax a jóg parce que privé li ko tax a jóg mooy yëfu boppam administration li ko tax a jóg mooy intérêt général mooy njëriñu ñëpp waaye su dee loolu mën na jur ñu gën a am efficacité ci liggéey bi dañ leen ci encouragé pour que ngeen gën def loolu alors ci màggal gi pour euh, tëj euh, ci point yooyu mooy lépp lu aju woon ci màggal gi muy hygiène muy santé muy cadre de vie muy défense muy sécurité autant mais également muy ci wàllu commerce ak ci wàllu communication lépp waxtaan nañ ci li ci am ci ay jéego gis nañ ko liñ ci war a defaraat wala góorgóorlu wàcc ci liggéey ba yegg ci fi ñu jëm aussi gis nañ ko gis nañ tamit ni occasion la pour sax poser yeneen problème yoo xam ne du directement le lié ak màggal bi bon Serigne Cheikh Bara Abdou Lahad wax na léegi taleer bi jëm diggante ci maxa ak euh, Mexe xam naa loolu moom euh, dinañ koy jotli le ministre Mansour Faye ba pare taxawal xool xool tamit ñu ci taxawee loolu mooy dal kàddu yi Serigne bi. kon dañ lay yóbbante. nuyoo sëriñ ak cantam ko ci président ko yóbbante cant ak ngërëm ci sëriñ bi ndax wax na ne bu mu toogee ba nekk ni lépp loo xam ne lu mos a bàyyi ko la ci moom di yitte njaboot gi di yitte dëkk ba def na ca ba def ci lu mu loolu nag kon bu yàgg dafay ñu ba tollu fii ñu ngi koy seeralaat ak cant ak ngërëm boobu di gën a ferli itam seen diggante na ko ko waxoon ci lan la mu dégg moo ne ko li fi bakkan baa ngi nooyu rek kóllëre gi saa su xëy du ko ko waxee ay ndawam yoo xam ne di ko liggéey ci liggéey ba dina ci boole sa cant bopp ndax ni ma la ko waxee ci biir yi maa waaye ba nga fi ñëwee ba nga gën taxaw ko ci ñaari taxawaay ba ci jëkk mooy fi nga toog yilif ministère bi ministère bi kër diine yépp nga jokkoo ñoom mu àjju ci waaye xam gi nga xam ni nga ba noppi bokk ci te fonk ko lool bokk ci li waral bi ñu fi ñëwee ba léegi liggéey bi gën naa yomb ci ñun lool seere naa ko ci biir te dama mën ko ko yéene yéene cant bi mënees naa maandu kon nag gis nañ ci sa xër bi ci sa përsër gis ci sa taxawaay bu yëpp seer kon léegi lay ñaaral ci ak Sëriñ Tuubaa yaa ngi ko seq ak ñëpp liggéey bi ngeen ci def yàlla Sëriñ Tuubaa nangu leen te bu ko nangu rek incha allah bu àndee dogalu yàlla saa su ñu xëyee rek lu ngeen dëgmal rek day gën a yomb ci yéen di fàttali rek màggal yi ndax liñ ci waxaat tuuti lay doon ndax màggal Tuubaa day xew-xew màgg boo doon xool. waxuma ci Sénégal waaye ci àdduna xew-xew diine wala benn xew-xew boo xam ne mooy juróom ko ëpp dana fa daje bëriwul ci àdduna kon loolu xew-xew bu tuuti lépp it fees dal la ci njëkk te la ci njëkk nag mooy jaamu yàlla gi nga xam ne kii borom bis moo ko santaane jaamu yàlla nag firiwul ne jullee bi war rek mooy jaamu yàlla jaamu yàlla mooy lépp loo xam ne jaamu bu ko defee. di ndigalu mu di ca séntu séntu première loolu jaamu yàlla moo tax ñu moo tax mu dem ba ak sëñ ba di Sénégal ne am na luñ ko fonk rek war nañ ko fonk lu ëpp ndax ministère bi ñu ñu ko léegi ci wàllu xayma di xayma yu wóor yoo xam ne ñu ko def sa bokkuñ ci biir yoon waaye lu toll ci ñetti at wala ñaari at genn wàll bi ko mujjee xool li nga xam ne nguuru Sénégal dana ko ci jëriñoo mu dugg ci ñoom mën na deux cent cinquante milliards kon loolu ku xew-xew boo xam te li ëpp ci fet dañuy wax ne bu accès day nërmeel économie yooyu màggal Tuubaa rek day yëkkati économie yooyu kon jàpp naa ne lu mu ko gën a waajal rek ak lu mu ko gën a fonk rek lu mu rëy rëy fu mu ci àgg rek wees na ko loolu dayoo màggal gi moo toll noonu dayoo dëkk bu toll la itam day dëkk boo xam ne ndax waxante dëgg dafa baax ndax lépp bi ñu raay raayal rek ndax ñi fi nekk ñëpp ay jullit fi nekk jullit ay jullit ñoo fi nekk waaye am na loo xam ne ñëpp maas nañ ci xam ne réalité la mooy Touba ñëpp xam nañ ne bu Ndakaaru jàlle mooy dëkk bi gën a rëy Sénégal am nañu gàllankoor rek ndax gàllankoor mooy li xew ci Sénégal mooy ñàkk a maandu ak ñàkk waxante dëgg ak raay raay ndax fu ñu tuddee Touba rek ñëpp dañuy jàpp ne Touba dëkku Touba dëkku sëriñ boo xam ne dafay jëm li ñu ko war na ci dëkku sëriñ loolu rek moo dem ba indi jafe-jafe yi waa Touba di dund ndax wax nañu ko fan yi directeur bi war a wàllu xam nga ne état bi diggante ñetti at yi def na ca effort yu bare bare ci assainissement loo liñ koy moom ci boppam wax na lii tax Touba assainissement bu baax ba mel na bëgg dana ëpp cent cinquante milliards kon loolu li ko mooy tardement bu métti moom loolu nag li ko ëpp mooy bu ñu bëggee natt Touba ci jamonoy Senghor nga xam ne Touba moo tuun sax dix nga bëgg ko natt ci Touba koo day indi gàllankoor xam dañ ko war di wax mooy fu dañuy jàpp ne lu ñu def Touba dañ ko war a def fépp te ak maanu mooy dëkk bu ne lam yàlla ko def ko suñu saa yi daanaka suñu Touba nee am maandoo di ko mu ngi tàmbalee ci yamale lu yàlla yamaluwut kon boo fekkee dëkk boo xam ne genn wàllu dëkk wala kaar boo ko natt ci beneen dëkk ko mat nga bëgg def fee def ko fa rek day indi jafe day dëkk boo xam ne jaar na ñëpp bàyyi ci xel te sóoraale ko te day bëgg indi jafe-jafe ndax day day jàpp lu ñu def Tuubaa rek nga ne kuy kujje ñëpp ay ñëpp tolloo ay droit ñëpp tolloo ay àq ba ca desaati mooy màggal Tuubaa gii màggal Tuubaa ñëpp xam nañ ni dafay daje ci nit genn war ga dajewul fenn kon loolu itam bu fekkee dañu bëgg lu def Tuubaa defar ko fi ren loolu ne ak maandu lañ ci jublu ñu ngi bëgg indi gàllankoor loolu itam kon lu mat a bàyyi xel la loo xam ne nit ñi dañ koy jéggi jàll rek kenn du ko nangu wax waaye buñ ko nanguutoo wax itam waa Tuubaa ci bëgg a dundee gàllankoor rek natt yu métti yoo xam ne ñu ngi bëgg a fa war a jéggi ndax dëkk bu toll Tuubaa ku fa dëkkee xam dëkk bi nan toll xam la ko waral da nga xam ne mboolem nga koy xaymaale ko natt rek day mel ne te boo doon natt ci wàllu saahir ñi nga xam ne dañuy investir ngir bëgg gañe fi sans ku da ngay def ci Tuubaa doo ko def ci benn dëkk ngir ñoom xam ne lu ñu fi def di si loolu nag kon bu fekkee état bi nga xam dafa yëg ñëpp war a tolloo ne ñëpp itam tolloo ne de fiiriwul loo def ko def ko fa waaye fu ci ne la fa toog la fa jaaru ci ay nit di réalité dañ ko faa war a matal sëkk loolu nag day loo xam ne lu yàgg nekk lu yëg mooy loo xam ne itam lu war a génn ci bitti la yéen da leen ko jug ndax li taxu leen ko jug fi nekkoon ba yàlla def ngeen ne ci waajtaay war a dem waaye kon kuy ñëwaat na sóoraale bi tuubaakat dëkk la moo xam ne la fa wax bari na lañ fa war a def bari lañu askan li ñu fa war a def defuñu ko kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa